destin wu nit moom saa yoo ko xësee su ñëwee rek day ñëw loolu sa yàlla la waaw loolu daal destin la quoi. Ah, parce que tax na tey yaa ngi ñuy bégal bu baax a baax a baax <laughs> mais léegi soo xoolee ñun dem nañ ba dindi ci loolu et je peux dire que waa Thiès ko fi dindi parce que ñu ñooy invité waa Dakar ñu ñëw ah ba pare un de deux ñun ñooy invité waa tur bu nekk ma jëlee jànqeen indi ko suis képar gi indi jëlee soleil levant indi daal di boole ñu nous ñu door ko man gannaaw ba ma ba ma demee ba ñu tekkil au vrai sens du mot la xam ne kon jam jam bi nga xamante ni ñun ay jaam yu doyadi di wax ni ñun ay natt natt yooyu nag dafay bokk erreur de jeunesse dans ta vie di def ay erreur monumental mais chaque erreur buma def rek man dama ci tirer de leçon ba suba duma ko defat kan mo nek sa papa bobu di Baye Mamour Gueye ban relation nga am ak sa papa bi nga xamante ne nii mooy Baye Mamour Gueye non waaw mais Niki Niki Baye Mamour Gueye dafa sori ci man ngi lay ñaan nga jéem a dëgër euh, ñu continuer émission bi ku nekk xam na diggante waajur ak euh, doomam surtout ma euh, waajur boo xamante ne nii daf la féete ku nekk.